liiru loolu am na solo daanaka li ñu li ñu bëggoon nga wax ko ci yëpp. waaw ci làmb ja wax nga ko. waaw mais dégg naa da ngay waaj a xaru fan yi damay waaj xaru. yow loolu daal lan ma soof ci am na bi ngay jëm. waaye waaye man xanaa du affaire góor. MMA dégg li ma waaye loolu du dara xanaa góor. xanaa du affaire góor man góor la góor la ñëp nee liiru daa bëgg a xaru. lu may xaru mobile laa soxla xanaa xam mobile laa soxla ci MMA <laughs> laa soxla <laughs> du dara. tappat la maako wax ragal la. Mobile la du dara saytaana la. du dara. maa wax moom laa soxla. du nuyu waa Amérique yëpp moo njaay directeur Serigne Madeleine maa ngi koy nuyu eh, eh, ah eh. ak ñoom Mafal Baye Fall ba Ablaye Sarr ak ñoom Coy ak ak sama booy ba euh, kii tam doon bëre Pape Sène te doon Pape Sène mu daanu <laughs> Evra Rousse <laughs> sama rakk ji di ko félicité comprendre nga di nuyu waa Amérique yëpp ak euh, Mor Ndiaye Mor Ndiaye hmm. ak Afia waa canal ñoom ñëpp maa leen gërëm di leen sant di leen nuyu ak père Babou maire fay Faye at Cheikh Thiam téer bu mag ba nekk Amérique sama copain Cheikh Thiam at Bo Diop Rasil at Boos waa Amérique yëpp maa ngi leen nuyu di leen sant ndax tey ñoo yàkkam sama combat ci MMA bi ndax waa Amérique ñoom ma bëgg man at margo waa Koosil ba ñëpp ndax man dañ ma mobile da koy jël ay ginaar laa ci reer fii ba noppi jox ci jeeg jox ci xale yi yow lan la affaire góor la mobile du dara du tus tous maa ko wax du dara waaye yow dimbali ma muy tàppet su doon loolu am na ko du ko wane fii ci làmb ji ay moromam fi nekk mu rayante fii ba am ko ay ñoo nekk ci làmb ji di ràññee na ko def ci làmb na ko ñëw ko ci làmb ji tàppet la du tous maa ko wax ñu jox la avance barki Cheikh Ahmadou Bamba pare naa pour mobile moo gën woon na ma hmm. pare a jui pare te ko jël waaye lan mooy di ko jël xeex boo xam ne oh, ci kaw moo déet nee na ma liiru amul aniyeer ma ne ko gënoo ma kaa xam <laughs> nee na ma amul jéggi saako ma ne ko gënoo ma kaa xam comprendre nga bi dañ koy tëj nee na ma kaaf la ma ne ko ah. gënoo ma kaa xam su ci pare ku daanu dañ lay dóor mun nan ma rey ma dee man maa lépp am man ma mun a wéq yow bi barke Sëriñ Bamba mun naa wéq mun naa lépp mun naa wéq mun naa lépp man maa la pare naa su ci pare pour MMA bi pare naa te yow mu bi nga soxla moom laa soxla wala euh, Pape Sène man mobile laa gën a soxla sa Pape Sène laa gën a soxla ndax làmmeñ bi dafa rëy mobile laa gën a soxla dama bëgg a tëj làmmeñ bi j'arrête et eh, mobile j'arrête mobile waaw doomu Grand Yoff oh mi ngi mel ni Grand Yoff la rek Grand Yoff la xaw ah, ma de Grand yaakaar naa ay gayndee fa dëkk way moom bokk ci gayndey léegi lan moo tax nga ñeme mobile ba jël ba laaj mobile daf ñu doon bëgg a jaxase géejawaay dama jaxase màgg guy gi dama bëgg a jaxase ak sama rakk ah saytaane la. <laughs> mais yow dafa yaa la <laughs> dafa yaa ñoo bokku ndey ak baay <laughs> te jàmm la ñuy woote. xiiroo amu fi kuy xiiroo ko ngaayoo nga dem ca xaj. ñu xiiroo wunu ngaayoo wunu booloo la ñuy def nekk benn lu ñu yóotu jot ci. kon open press bi dinañ xaar nga ñëw boo jë boo jë comme lépp lépp nan xaar lépp. seen nan xaar lépp suba lépp tàmbali. nan xaar ah. lépp nan xaar lépp dinaa wax ba teppeeku. mais man sa dugg si ci. xaw ma de dinaa dugg si bi dara yëfi làmb dañoo nekk si làmb. waaw waaw làmb la nekk làmb la ñuy waajal. waaw dinaa dugg si dinaa ñëw daal waaw incha allah rabi te mbër yëpp leen ñëw sooba yàlla incha allah rabi. Hmm. waaw fii la koy defee a naa. Reug Reug loo koy wax. li ma koy wax na yaru. Reug teey. su yaroo. mu hmm. yomb ci moom. Hmm. su dérapé nag day metti ci moom. ndax ah géej guy bi. jàmbaar la na fi lu ne. waaye na yaru. ki daan ndaanaan de. ku na fi ay reer ba tay këpp na fi ay reer ba tay daan na giri daan na Elton champion la waaye nag <laughs> ki muy ah j'ai attention. na noppi daal su bëggee jël bu yomb su fi nekkee nag di wax yi muy wax nii nii nii day gën a métti si moom de. day gën a métti si moom ndax guy gi mii ma gis dafa mer te gaynde mer la fanaanoo. dafa mer lu ko waaw ko mer loo xam na ko wax yii rek rek di wax. moo ko merloo nee na da koy yëgal ci kees bi. waaw baax na. nee na jël na da ko sànni même jàpp ko. kan Reug Reug nee na guy gi da ko nax moom dafa nax guy gi. sànni ko yooyu yëpp dafa bëgg a dugg ci mental rek xam nga booy yi dañoo yeew dañuy bëgg bëgg a jaxase ko bu ko jaxasee dugg ci mental guy gi daal li ma koy digal mooy na nekk ci ruqam rek entraîné. ah bàyyi bàyyi bàyyi li muy wax ci rek man maa yeewoo wax ci. Hmm. waaw waaw moom ci digg géew ba moo ko moom foofu laa ko sas digg géew ba. li ci des man maa ko géré. kon fii ba la fin yaa yor wax. fii ba si la fin maa moom wax ci comme ku ma yëg ma yëg la ku ma yëg ma yëg la. Mm-hmm. la. Mm-hmm. waaw li may ñaan daal moom yàlla na nu yàlla defal jàmm. te ñëpp géejawaay gépp génn jàppale ko dooleel ko. Mm-hmm. xam na ñun géejawaay lan am géejawaay la ñuy tiitaroo comprendre nga. waaw te bàyyi wax ci sew di wax benn affaire benn appel. Ketchup Boucher. moo guy gi ñoo bokk ndey baay bàyyi. la. guy gi magam la. Mhm. comprendre nga. Mhm. nanu ñëw ñu mel na ñu mbokk ndey ak baay mu ñëw ci bis bi maa ngi koy woo ci bis bi ñoom ñëpp ñu seq jàmm ndax bëgguma xiiroo ŋaayoo. Mhm. déedéet. ndeysaan bëgguma xiiroo xam ni yaa guy gi amoon ngeen xaar ma yàlla muy xale ak yooyu bëgg naa ñëpp ñu nekk jàmm. bokku ndey ak baay ñëw dooleel ko ci bis ba ndax lii sunu dara sax man maa tax man mii seen mag. kon séntu nañ open presse nga indi. buuse indi ñëpp ba booy ñëpp di ñëw buusita ñoom ñëpp ñoom sax booy yëpp deen ñëw ndax su dara man seen kilifa seen mag laa mm-hmm. te guy gi dafa jël lépp ëpp na teg ko sama loxo. Mm-hmm. bëgg naa ñëpp ñëw ba pare ñu seq jàmm. amul xiiroo amul ñaayoo lii rek moo woo ne lan laa bëgg laa pee. jàmm rek mu jàmm laay wootee. moo ñu bëggal neexal. Oh. neexal. Ah, waaw. ah loolu lañ xam loolu ngeen xam rek nga bëgg. ndeysaan bul jooy liiru bul jooy. bul jooy liiru. parce que Serigne Saliou Mbacke loolu laa bëgg. bul jooy sa xol say na amul solo. dëgg la fii la mu gis damay jeex. ndeysaan ku la yëg nga yëg ko. dëgg la. te jël léegi daal ko tuddee su ko neexoon dem seen bopp beneen. dëgg la kon yoruma ñaari salaamaaleykum. wallaay dëgg la sama lambe nag laa. wallaay dëgg la ma dimbali. wallaay jaat dëgg la suturaal ma. dëgg la jaat. di woo ñëpp sagal ma. dëgg la jaat man lii la am ñu sagal ma. liiru dëgg la. képp kuy mbëtt géejawaay nekk géejawaay di takk ngemb. Hmm. maa ngi lay woo ci bis bi. ku ñëwul bàyyi nga ko barke Serigne Saliou Mbacke déggoo ma de. képp kuy takk mbër. ngemb mu ca Balla Gaye laa ko commencé. Mhm. ba ci suuf ba ci suuf xale yëpp. Mhm. ñoom saa kees ak Aliou Seye ak Lada Guère ak Guy Guèye déggal Marley. Mhm. Pape Thiam Jackson. xale yëpp ndax at at kii nu mu tudd euh, fils de Balla fils de Balla. waaw ñoom ñëpp ren ñëw. ndax ku ci nekk da ngay am bis. dëgg la te soo amee bis bu nga ñu taxaw la mhm. ko ci kon am bis doomu géej way ñëpp nañ génn ñu mhm. boole woon ne ñun jotewuñu dara mhm. jotewuñu dara loolu laay ñaan te lool laa bëgg yàlla na ko yàlla defal voilà loolu laa bëgg ndax fii la waxee woon lépp moo tax ma waxee ko fii man tamit voilà sa ko wax moo tax ma waxal la ko fii ñaareel ba dafa am leen lu xew dafa am benn mbër bu nekk ci réew mi muy sénégalais muy ndongoloo ndongoloo dafa am lu ko nattoo bu ko dal ndongoloo ban la ndongoloo mbër bu demoon Amérique bu Grand Médine waaw deret dafa foor yaay dafa foor mm-hmm. yaayam dañ ko téye mm-hmm. ak ñaari rakkam yu góor mm-hmm. dama bëgg képp ku autorité te nekk géejaw euh, nekk ci àdduna bi nekk ndakaaru nekk géej at foo mën mënta nekk nga jàppale ko taxaw ko booy bi fan yi vraiment lekkul naanu comprendre nga yaayam dañ ko téye ak ñaari rakkam yu góor comprendre nga dañ leen a téye te xam nga yaay dafa foor kenn yëgu ko ndax bugg koo wax kenn da cee waxtaan ak moom man. Hmm. woo ma waxtaan cee man. Hmm. moo tax nag ma bëgg. Hmm. autorité ñu jàppale ko taxaw ndax yaay dafa foor ci doom. te booy bi li mu yoroon yëpp neen def na ko ci. te vraiment Hmm. tukki woon na fi. Hmm. comprendre loolu laa bëgg ñëpp ñu jàppale ko. Hmm. àdduna amul solo ñun ñëpp ñoo bokk ndey bàyyi dañuy liggéey su jeexee jeex na na nañu yéenante jàmm. na leen yéenante jàmm. moom nag lii na bëgg naa autorité yi jot ci ñëpp taxaw ko jàppale ko. yaay dafa foor. sa yaay bi la jur ñu téye ko. dafa neexul ci xol ba pare at sa ñaari rak yu góor. xam nga dafa metti bëgg naa ñu jàppale ko. taxaw ko képp ku ah, nitu làmb wala ngay autorité. man de sama avocat bi moom dina ko jàppale te su bisu taxaw naa ko wax dina taxaw. muy maître Ndiack Ba maître Ndiak Ba maître Ndiak Ba. Hmm. dinaa ko wax incha allah rabbi hmm. pour suy taxaw mu jàpp ci. mu ñoo ñëw plaideel ko. Hmm. waa at maître Diagne kan. maître Diagne ak ñoom dan. ñoom ñëpp daan ko wax ñu taxaw ko ñu jàppale la ndax àdduna amul solo. ñun ñëpp ñoo bokk ndeg bàyyi. comprendre nga. man ñëpp ma bëgg mbër yëpp ma bëgg. waaye nag géejawaay laa am géejawaay mooy sama chef. géejawaay mooy sama pari. mooy sama lépp. comprendre nga. dëgg la muusu géejawaay sax su dee xëccoonte benn affaire ah. maa ngi géejawaay moom laa am. dëgg Guédiawaye mooy sama chef. maa ngi ñaanal ñëpp jàmm.